Ahmed Aïdara ak Ahmed Aïdara Ahmed Aidara nee na Macky Sall jeexal na Ahmed dara mu ngi noonu kii noonu fii permanence Pastef. bu ko ñu ndàngam daan. yéen a ngi dégg Ahmed Aïdara a ngi Ahmed Aidara ak si loolu xaa bu député honorable député Ahmed Aïdara mu ngi noonu Ahmed Aïdara mu ngi noonu honorable yaa ngi ànd ak Sénégal 7 benn mot ci Sénégal 7 voilà un mot ci Sénégal 7 Macky Sall na nangu ndogalu yàlla ah. Macky Sall na nangu ndogalu yàlla nguuram bi jeex na voilà jërëjëf réaction monsieur le maire de Guédiawaye l'honorable député à l'Assemblée nationale Ahmed Aïdara Euh, dégg ngeen ko sa réaction sur Sénégal 7 euh, comme ni ngeen ko gisee noonu euh, dugaat na si otom teew na fi nga xam rek moom mooy alors si prémence kilifa gi maa ngi lay ni yaa ngi ànd rek tàllalal ma ko micro bi alors ma bàyyi la nga wax sa réaction ginnaaw bi ñu autorisé manifestation bi finalement xam nga dafa am loo xamante ni dogal suñu borom dañ ko war a nangu lii musul am Sénégal ah, tey tey Sonko c'est le chef de l'opposition fu mu dem tey dafa war a am garde corps ñu koy fléchal fu mu bëgg dem dem fa mais du jàll. Sonko la ñu àndal fii ba 2024 fal ko mu doon président de la république du Sénégal pour mu defar Sénégal ñaata jeune tey ñoo nekk di taxawaalu amuñ liggéey ñaata xoolal la coût de la vie est très cher kan moo ci mën a génne Sonko moo ñu ci mën a génne te incha allah dinañ ko fal bu soobee yàlla. Euh, mu ngi noonu alors yéen ñi seetaan jamono ji euh, ba tey euh, yéen a ngi gis noonu l'honorable député maire Ahmed Aïdara ñëw na fii nga xamante rek moom mooy ci permanence bu Pastef Touba. alors si jamono jooju Ousmane Sonko également mu ngi si itinéraire bi di dem fi nga xamante ni moom mooy fële sa duwaanu. donc fële sa duwaanu baax na fële sa duwaanu donc bi fi mu war a mën a loolu dèjà moom ngeen di gis noonu Ahmed Aïdara ba tey mu ngi noonu si li nga xam moom mooy alors si oto bi. Seydina Seydina Ahmed Aïdara ne ko ay taal yow ñoo bëgg ziar fii monsieur le maire. grand monsieur waaw ñii a liggéey rafet na may may. waaw a en direct amagu information yi leer. non taxawaay seen taxawaay. xaar leen a ak ñu mën a am ak moom un entretien exclusif par rapport ak taxawaayam. ak teewaayam fii si. Euh, fii si permanence bu euh, bu Mbacké présentement ñëw na euh, monsieur le maire a ngi noonu alors monsieur le maire yaa ngi en direct si Sénégal 7 ñu ngi ak Lona Abou Déthié Fall monsieur le président PRP ñu ngi lay yaa ngi en direct jamono ji si Sénégal 7 tey seen teewaay ma a la ñëw si. ngi leen di fay bu baax. Hmm. sunu teewaay moom ku ñu yàgg xool xam ni lu jaadu la. Hmm. ndaxte suñu taxawaay yëpp du ñu duggee politique ba tey. Hmm. mooy taxawu liberté yi ak la démocratie. te tey jàpp nañ ni président Macky Sall mënul moom ak euh, gouvernement am ak ay njoñam mhm. barki démb ñu gis leen cees ñu dugg fépp ci biir quartier yu Thiès tey ñu ko gi ñëw Mbàkke ñu ni doo leen ko fi defee xam nga loolu dafa doy waar mhm. alors que ku nekk xam na ni rassemblement boo autorisé rek jàmm rek moo fay am mhm. ndaxte nit ñu civilisé ñoo ñëw toog bëgg déglu seen i ay leader ñu wax ak ñoom kon ay interdiction manifestation moo war a jeex euh, beneen mbir mi mooy bi préfet interdire mbir mi ñun dañu def appel côté cour suprême mhm. tant que décision boobu génnagul li nga xam ni mooy décision préfet bi ça veut dire que valable gul mhm. définitivement donc loolu aussi ñoo ngi xaar mhm. mais li am ba wér mooy ay citoyen lañu wax fa dëgg yàlla kenn waru ñoo mën a tere ñuy génn dem doxi suñu soxla te gis nga dugg nañu ak jàmm te amul benn difficulté fii nii ci Mbàkke. ndax yéen a ngi dëggal le fait que ñu daal di autorisé finalement li nga xam ne moom mooy manifestation bi jamono ci. boo man amaguma document bi. d'accord mais amaguma aussi document wu euh, interdiction bi par Cour suprême. Mhm. jotaguma ci benn. Mhm. wante li wéer mooy dugal nañ ko fa. Mhm. te ku xam yoon mooy tant que loolu amoo ko. tey ji nii décision bi préfet bi jël. Mhm. maanaam du décision bu définitive mhm. il faut cour suprême tey jii nii mën a prononcé mais jotaguma décision bi. président bi ñu ñëwee tey suba gis nañ un dispositif d'habitude comme sécuritaire euh, l' ensemble si euh, quartier nekk si diwaanu Mbacké ban euh, jàngat ngay def si loolu. lu mën a ñàkk la xam nga tey jii nii wax fa dëgg yàlla ñëpp ay sénégalais te ku xam nit ñi xam ni ñii ay nitu jàmm la xam nga mobiliser gendarmerie ak police indi leen mel ne ay gangster ñoo yegg ci xam nga mën na ñàkk ñun duna ay gangster ñun ay citoyen yu bëgg réew mi la te ay citoyen jàmbaar ji bëgg nañu mënu sànq dama koy jël sama kii bi dafa daggoon ko rek. monsieur le maire ba xam ne ay dara. xaaral ñu xaaral ñu ba journaliste pare ah. xaaral journaliste. monsieur le maire ñu jëlaat la dafa daggoon sa problème alors monsieur le maire ñu ngi lay nuyu euh, bi ñu jëlee l'honorable euh, ak président Déthié Fall euh, fii si permanence bi ma bàyyi la nga wax tey sa teewaay par rapport ak mobilisation bi waroon am fii si voilà. heure bi 2011. waaw ah. discours bi Macky Sall doon tenir moom la ñuy tenir tey Macky Sall ay baaru kese la. Macky Sall yaramam yëpp aar la nguuram jeex na na nangu juróom-ñetti weer moo ko fi dese. nguuram jeex na na nangu juróom-ñetti weer moo ko fi dese. mais na ko rafetal rek li xale yi naan xoolal ñaaw na ba pare tere yu gën a ñaaw bu jeexee jeex na Idriss sek lakk na ko démb ay tubaab mu xóot xaw ma nag ndax te Macky nandi te la xam na li ko Idi wax. mooy laalal sijaada ak kurus te nga laal piliyaan toog mbir mi jeex na te nga rafetal sa ginnaaw mais comme que ñuy ànd ak moom ñoo commencé di ko cax waxanu waat bu loolu weesoo lii xew nii nii nii ci dëkk bi nii ak Ousmane Sonko nan nangu ndogalu borom bi yàlla mooy maye lu mu may nit nanga ko nangu même boo bokkul ak moom foo leen far nangul Macky na nangu lii yàlla dogal jeex na leer na lii jeex na kañ jël kii monsieur le maire. ana grand grand. Thank you. waaw waaw aca voilà euh, ñu ngi ànd rek senegal Sénégal ñu ngi ak monsieur le maire Adama Sarr euh, ànd ak également docteur Cheikh Tidiane Dièye si biir euh, monsieur le maire maa ngi leen di. waaw maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di ziar u baax a baax. Mm-hmm. alors tey sa présence par rapport ak meeting bi nga xamante ni déjà Ousmane Sonko ak ñi mu àndal euh, sumb nañu ko tey ji ma bàyyi la nga wax tey ji sa réaction ci loolu. waaw réaction bi du leen lu dul ñëw teew si meeting bu Mbàkke bi. Mhm. di wax ni rek euh, maa ngi ànd ak euh, sama leader docteur Cheikh Tidiane Dieye. Mhm. ñëw si meeting bi jàppale ki nga xamante ni mooy Ousmane Sonko. parce que yoon moo ñu may ñu organiser wu. Mhm. def ay meeting woo suñuy nit woo suñuy militants sympathiser ak ñoom waxtaan ak ñoom donc dafa doon loo xamante ne dafa bokk si calendrier politique bi nga xamante ne ñoo ngi koy wëyal loolu moo war a tànk tey jii fii si Mbàkke ah, alors beneen bi mooy euh, gis nañ dañ koo interdiroon euh, léegi léegi ñu jotaal beneen bataaxal ne euh, jot nañ ko rek daal di autorisé ban appréciation ngeen si bu fekkee xibaar bi lu weer la. waa il paraît que la cour suprême vient de débouter le préfet. te bu fekkente ne loolu moo am mooy que ni meeting bi day am mais de toute façon ñun jóge nañ Dakar ñëw fii tey si Mbàkke. te mm-hmm. incha allahu rabi dinañ saafanteeg askanu Mbàkke. parce que loolu je pense que constitution moo ñu ko may. amul lenn li nga xamante ne si mun nañu ko tere. Mhm. léegi li ngeen wax nag euh, jot nañ information bi. et bu fekkee loolu la rek mooy meeting bi autorisé nañ ko. Mhm. d'accord mu ngi noonu euh, ba tey si euh, beneen boor bi ñu ngi ak képp rek moom mooy docteur Cheikh Tidiane Dieye ñu fas yéene rek daal di dem si beneen boor bi ngir mën a am li nga xam moom mooy réaction alors sa réaction mënut a ñàkk docteur. il a dit li mu wax rek laa wax. d'accord ah, li mu wax rek laa wax. pour euh, teew fii et pour montrer que ce pays est une démocratie une dictature mënu fi prospérer un tyrannisme mënu fi prospérer mm-hmm. et Macky ne, réussira pas il a engagé un bras de fer avec le peuple sénégalais il euh, échouera waaw bi ñuy dugg fii euh, dañu jàpp ci buntu Mbacké mais dañu leen fel romb dem suñu yoon donc c'est ça qu'il faut dire tout le peuple s'est donné rendez-vous à Mbacké pour montrer à Macky que c'est terminé mm-hmm. sa dictature ne peut dinañ ko ko won parce que il va échouer dans son bras de fer avec le peuple sénégalais. merci beaucoup docteur merci également monsieur euh, la commune de Kër Massar voilà doon prononcé par rapport ak li nga xamante ni rek euh, moom mooy meeting Bye. Vai. Vai. laa wax naan la. d' accord mu ngi noonu ñu dem euh, xool réaction euh, kii di euh, le président Malick Gakou moom tamit ñëw na fii si buntu permanence bi ñu jël ko en direct si Sénégal 7 voilà ñu jël l'honorable député Malick Gakou non non le président Malick Gakou président président du grand parti maa ngi jéeglu nee naa l'honorable Malick Gakou voilà président Malick Gakou ñu ngi ñu ngi lay jaar yaa ngi ak euh, suñu doyen Habib Sy euh, ñu ngi jaar ma bàyyi la nga wax sa réaction par rapport ak sa teewaay si Sénégal 7. waaw xam nga fii li fi xew tey ñëpp gis nañ ko. Mhm. Euh, coalition Yewwi Askan Wi ñun ñëpp taxaw. Mhm. ñëw fii pour participer ci meeting bi bi nga xam ne nii Macky Sall ak régime am mhm. ni ko war di defee tout le temps chaque fois bu opposition war a taxaw pour xeex ak xam ak yelleefam ñu interdire ko te Sénégal nag. dafa am constitution constitution bi dafa am lu mu autorisé mooy droit à la marche droit aussi à la manifestation loolu moo tax ñu taxaw fii tey wan Macky Sall ak régime am ne mënaluñ ñu dara ragaluñu tiituñu yox yoxuwuñu daañu taxaw exercer suñu droit bi nga xam ne ni yoon moo ñu ko may te bu neexee nii lañ koy jàppee nag ba kera régime bi di fi jóge ñoo di fi régime boo xam ne nii mooy taxaw pour liggéeyal intérêt Sénégal d'accord par rapport ak euh, li nga xamante ni moom mooy autorisation bi finalement euh, loolu yow ban appréciation nga si def. waaw pour le moment ñu ngi xaar décision. décision bi voilà Cour suprême nekkagul fiable sama juum. amee ba leer. waaw boobaa aussi ñun leaders yi nous sommes des responsables daañu toog waxtaan ci xool ban yoon la ñu war a jaar pour que li nga xam ne ni moom la ñu war may ñu mën ko exercer pleinement parce que aussi. loolu mooy li nga xam ne ni mooy taxawaay bi nga xam ne moom la taxaw ci réew mi mm-hmm. parce que jóguñu pour yàq dara waaye dañoo jóg pour li nga xam ne ñoo ko moom Macky Sall mu bëgg ko mu bañ ko jox ñu ko te li ñu bëgg mooy mu jóge fii dafa benn Sénégal. alors ndax nañoo xaar benn coalition bu tukkee yéen ci bi parce que récemment gis nañ ne lancé waat nga sa grand la candidature en 2024 ndax ëllëgu mën nañoo xaar ëllëgu euh, président Malick Gakou à ce que ñu coaliser bi nga xamante ne daanaka moo fi nekk bu Ousmane Sonko. waaw xam am solo mooy ñun dañoo jóg mhm. am beneen Sénégal dañu jóg surtout pour jëlee fi Macky Sall indi fi beneen Sénégal te loolu la ñu Sénégal lay wax. li nga xam ne nag moo jëm ci opposition bi ak suñu coalition bi nga xam ne mooy Yewwi Askan Wi ñu ànd liggéey ànd bu rafet ànd ci local yi ànd ci législative yi waxoon ne bu président lañ jotee ku nekk mën ngay yëkkati sa loxo loolu yëpp situation politique la bu neexee yàlla fii ak ay weer bu situation bi demee ba lu mu laaj rek lu situation bi laaj daañu ko def parce que Sénégal la ñu gënal suñu bopp daañu taxaw taxawaay bi nga xam ne nii fa la ñu Sénégalais yi xaar parce que du Malick solo wala keneen li am solo mooy Sénégalais bëgg la ñu namm mooy Macky Sall jóge fi ñu Sénégal defaraat benn Sénégal andi beneen Sénégal bu xam ne nii xale yi mag ñeeg Sénégal yëpp daañu am yaakaar ci réew mi pour que Sénégal jëm kanam te loolu moo am solo bu neexee la lépp lu mu laaj daañu ko euh, ñu ngi ak doyen Habib Sy moom tamit mu nekk leader bu conférence bu coalition Yewwi Askan euh, si Sénégal set jamono ji en direct alors euh, tey yow sa teewaay par rapport ak meeting bi lan la Malick yóbbaale na ma <laughs> mais sa relation ak Ousmane Sonko ñëpp xam nañ ko rawatina nag tey bu ngeen teewee fii Euh, ginnaaw bi ñu interdire euh, meeting bi ni mu mel euh, militants yeeg sympathisants yëpp teew ci la moo nekk tey effectivement au fond yow sa réaction. Malick yóbbaale na maa Malick yóbbaale na la c'est la même chose. waaw yóbbaale naa ko mais mën wax ci turu président Habib Sy parce que de façon li ñu waxoon rek. la ñuy waxaat lépp loo xam ne nii dafa bëgg gaañ Ousmane Sonko. wala mu bëgg gaañ Khalifa Sall. wala Habib Sy mi toog wala bépp membre conférence des leaders. muy Ahmed Aïdara. Eh, muy Déthié Fall muy Malick Gakou man mi toog muy ku mën di nekk dañuy taxaw tey jii Ousmane Sonko la ñuy attaqué boo lëgee bu ñu attaqué Habib Sy même taxawaay la ñuy taxaw parce que dañoo bokk ndey bokk bàyyi parce que suñu presse son amul solo li am solo mooy Sénégal li Sénégal yi namb bëgg ko mooy changement mooy Macky Sall dem te bu neexee la daa ñu xeex pour que Macky Sall dem taxaat beneen Sénégal parce que loolu moo am solo te ci loolu lañ nekk. jërëjëf euh, président Malick Gakou jërëjëf également doyen Habib Sy bu euh, euh, Yewwi Askan Wi dèjà dégg ngeen li nga xam rek moom mooy alors réaction yi ma ànd ak Fallou Mbaye ba tey dèjà dégg ngeen li nga xam rek moom mooy leader yi waaye tamit seen teewaay fii si permanence bi fii si permanence bu Pastef fii si diwaanu Mbacké euh, ñoom ñëpp ñëw nañ euh, jamono ji ngir ànd Sonko si euh, meeting bi am na beneen xar kanam bu bees bu ñu gis fii si lieu bi maanaam fii si permanence bi laata ñuy déplacé wu di dem fi nga xamante ni jamono ji alors moom mooy fële ci meeting bi war a amee waa jàppale na daal am na mbooloo bu takku lool ginnaaw ba ñu annoncé ne dañ ko finalement dañ ko autorisé Euh, li ni mel nag euh, ñu ngi gëstuwaat bu baax bi lee xibaar euh, amaguñ ci nag lu wér waaye jàpp leen ne bu ñu sukkandikoo si maison de l'impôt ñoo publier xibaar boobu noonu ñu ngi si fas yéene ànd ak yéen jamono ji ngeen gis yéen a ngi gis noonu patriotes yi jamono ji fees nañ dell dell dell dell dell jamono ji si buntu permanence bi fees nañ dell